Ehm, taxawu Sénégal Olof Ndiaye nee na sama bopp ma la gënal du bañ naa la on n'a pas de problème avec les autres forces politiques ni avec Ousmane Sonko ni le PASTEF au contraire ce sont nos nos frères dañ wax ni que ñun on comprend ce qu'ils sentent bi ñu am ñun jaar nañ fi xam nañ ko mais euh, tout est question de de temps et que euh, cela ne doit pas faire leur faire oublier tout ce qu'ils ont fait pour la démocratie et toute la force de proposition patriotique qui ont été ñun nag on travaille pour notre candidat notre candidat si Khalifa Sall mais mun a j'ai envie juste d'insister pour que nit ñi ñuy ñuy bàyyi nit ñi ak seen colère parce que colère ginnaaw lay féete da ngay gis sax nit ku la ne euh, voilà yow pourquoi ngay topp xalifa Sall lii def leen alors que pour pourquoi tey ñu war a fàtte Khalifa Sall bu njëkk àndal pour ànd ak keneen ku bees au contraire bu ñu ko defee sax dañu war a wax ni du ngeen ay gor man ku ma fekk may ànd ak may bàyyi Khalifa Sall wala may dem dama naan abattu gor je pense que am na lu ñu liggéey Khalifa Sall boobu ba léegi on va aller devant les Sénégalais on le souhaite pour lui mu présenter ay idées sénégalais au bout du bout les Sénégalais qui décident Sénégalais yi ils sont rationnels ils sont équilibrés et ils savent choisir et notre rêve c'est que vraiment que le président Macky ne se présente pas parce que nous sommes contre le troisième mandat mais surtout que ñëpp bokk pour que les Sénégalais puissent